مدينة علم مرتجا منة لنا جريء ومنج من سنوب ومن ثلم ما لا وأني بنبي كل فاسد وسرت بي عبدا خديما بلا خمي من الله رب العرش أبقي الصلاة بتسليم للمصطفى الموجل اليمي asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi yéen ñi nga xam ne yéen a ngi ñuy topp ci seen site bi di sunactu point com tey jii nag ñu ñëw fii ci gédé gi nga xam ne moo di dëkkub alxaaji bu Buso ñëw nag fas yéene fee def reportage bu yaatu boo xamante ni fas yéene noonu leen wan lépp loo xamante ni tukkee na fii ci dëkk bi ak ci biir jumaa ji nga xam ne tamit fi leen fas yéene ànd ak yéen dugg ci biir jumaa ji ngir xam jumaa ji nga xam ne ku tudd alxaaji Mbàkke Buso tudd jumaa waaye dina dugg tamit fa nga xam ne moo di këram war séeni faa waxtaane lépp loo xamante xam-xam la ak gëstu ak kàddu yi fekk fa xalifa bi nga xam ne nag mooy Serigne Omar Bousso fas yéene nañ koo fekk ci biir ak mbooleem njaboot ak alxaaji Bousso alxaaji Mbàkke Bousso ki kon mbokk ñu ànd ak yéen dugg ci jumaa ji nga xam ne moo di jumaa alxaaji Mbàkke Bousso nekk fii ci Gédé li faqdi saalikin tariqal la sawqi li faqdi saalikin tariqal xaqi شيخ الشيوخ كاشف الكروب الجدوي الحالم البسوبي خرم القرون حيلم السوداني بحر البهور مورد الزمان هو طويل الباه في الفنون وسائب الشرف في الهيون أبكي على دهامة البسوب asaxi mbàkke buso sil xurubi xerawlu leen ma dellu marsiyaati baarin loomi saahibil aayaati ma jooy sangu mbàkke ak mbusoobe ndayoo ca baay baraw mbusoobe way seyxu mbàkke najlu faati balla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 Euh, ñu ngi dellu si sunu émission bi nga xam ne ñu ngi ko tuddee Madinatul Ilmi ñu dikk fii nag tey ci Guédé Bousso di dëkk boo xamante ni dëkku xam-xam la tey ñu fas yéene fi waxtaane lan mooy xam-xam ak njëriñool xam-xam waaye sëñ Mbàkke Bousso nan la dunde woon xam-xam loolu dinañ ko wax ab tomb ngir njëkkanteeg jataay bi ak waxtu bi dañuy jox ki nga xam ne moo nekk ci sunu wet di sëriñ Sërif Bousso di doomi sëriñ Guédé Bousso ak sëriñ Njaañ Bousso di dëkk bi da nga ko ko tudd tudd xam-xam moom far ñi ko seq ñëpp di xam-xam dëkku xam-xam la boo xam ne daal dëgg yàlla dëkk bu ñëpp ci xam ràññee ci xam-xam ndax ki fi nekkoon doon dundal xam-xam waaye doon ku koy dunde waaye doon ko doon dundal nag rawatina nag ci pàkk sëriñ Touba yi nga xam ne moo di yoonu murit kon nu jox sañ Serigne mu nuyoo ñu daal di tàmbali waxtaan wi. bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain Euh, ñu ngi lay nuyu bu baax leen siyaar euh, comme ni nga ko waxee rek yaa ngi fii ci kër Serigne bu so ci Guédé di ko xam-xam ak diine ak islaam di sof ci jataay yu am solo yi nga xamante ne nii leen ko taxawee ci Touba ak li ko wër ci dundal xam-xam moo taxoon bi nga ñëwee tamit ñu ngi leen dalal fekk suñu kilifa yu baax yi ngeen toogoon ñëpp nekk ci njabootu Serigne bu Bousso ak wëllëre yi mbokk yi. ngir li nga xamante ne nii moom la fi maam ni bàyyi woon muy turaas bi ñu mën koo continuer comme ni nga xamante ne nii moom la ñu dénk loolu rek moo waral jotaay yi tax ñuy beral tuuti ci ay kàddu yoo xamante ne nii xëy na sëñ bi dénk nañu ko ci fàttali rek leen xam ne kon mu tudd tudd Serigne Mbacke ba tuddoo xam-xam lu mu gàtt gàtt rek ñu tënk dara ci li nga xamante ne nii mooy xam-xam ak ni mu ko taxawee woon ak rôle bi mu ci amoon. suñ benn introduction bu gàtt lan mooy xam-xam lan mooy ay njariñam ci lu gàtt loo xamante ni ak buntu xam-xam mooy lan. waaw xam-xam de moom euh, dafa nekk baat boo xamante ne nii euh, soo ko xasee wax rek dafay làmboo lu bëree bari waaye Serigne Touba radiyallahu anhu moom mi nga xam ni mooy suñu delluwaay ci lépp bi muy jàngal xam-xam ak la ca nekk dañuy bépp xam-xam buy jariñ nga dégg ci ni kon xam-xam yëmul ci xam-xamu islaam kese waaye bépp xam-xam boo xam ne mën naa jariñ dund gi ak doomu aadama. loolee bokk na ci xam-xam yi nga xamante ne nii dañoo digal ñu jàng ko lool sax moo tax booy seetlu Serigne Mbacke Bousso euh, donte ku ne dañ koo gën a xam ci xam-xamu sharia waaye am na yeneen xam-xam yoo xamante ne nii maanaam mën ngaa wax ni am na côté boo xam ne du xam-xamu sharia mooy lu mel ni géographia ak science ak yu mel noonu waaye teewul da caa géeju woon bu baax a baax. xam-xam daal su ma la ko doon tënkal mooy soroor bi nga xam ne mooy manaara bi nga xamante ni moom mooy euh, lumière doomu aadama mu xam fi muy taxaw. te mooy li nga xamante ne nii ku ko amut li tàqale diggante xayawaan ak doomu aadama mooy xam-xam kon nag xam-xam moom euh, boo xoolee alxuraanul karim iqra premier saar bi wàcc dafa mel ni ci jàng lay wax ak gëstu kon al xam-xam weesu wut denc ak réer am loo mën a saytoo sa àddina waaye am leneen loo xamante ni àllaaxira euh, bi nga xam ne lañ jëm ñun ñëpp ci kenn du ko euh, maanaam fàddu nga mën faa am texe ak li nga xamante ni mooy duxulul jannati kon daal xam-xam moom di lu yaatu mooy lépp loo xam ne expérience la boo xamante nit ki mën na koo jariñoo ndax borom xam-xam dañuy wax ni nekkul li li am solo li nga xam ni kese waaye naka ngay mën a firee lijjantee problème yi nga xam ni moom ngay jànkonteel ci mbedd mi ngir sukkandiku nga sukkandiku ci loo xam kon xam daara la joo xamante ni di dalay former ngir soo génnee li ngay dajal ci ay jafe-jafe mën koo nga mën koo am ci xàll mooy solution kon daal mooy daanaka làmp bi leeral lépp rek loolu mooy xam-xam. Euh, loolu bu xam-xamu sariya bi ñu dikk ci boobu ndax moo gën a itteel euh, ban xam-xam moo ci doon bu ci gën a jafe ak boo xam bu ci gën a nekk xam boo xamante ni bu dee xam bi nit ki moom mënu ko ñàkk surtout li jëm ci kiyam bu dee xam bi nga xam ne mooy xam taw tawhid loolu pas-pas la waaye xam-xam bi nga xam ne mooy xam-xam yi ñuy jariñoo ban xam-xam moo ci gën a jafe. waaw loolu moom dafay dellu ci nit ki rek ndax yàlla subhaanahu wa taala ni mu bindee doomu aadama dangay gis koo xamante ni xam-xam yi nit ñi jot ni moo gën a jafe moom mooy gën a yomb sa moom gis koo xam ne xam-xam yi ni ñu jàpp ni moo gën a yomb mooy moom na si ban xam-xam moo gën a tumuranke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ne ci xam-xamu miraas bokk na ci xam yi nga xamante ni war ngeen ko jàng bu baax a baax moo ndax mooy première xam-xam boo xam des na ko nocc ci nit ñi ah, am ñu ko delloo ci ak jafe gum am ñu ko delloo ci doomu aadama yi topp guñ topp bànneex ngir maanaam xëy na léeg-léeg lam cay wax xëy na du annoncé ñëpp kulli xaal kon ak jafe mi ngi aju ci nit ki rek du xam-xam jafe-jafe jafe-jafe ak ba mu mën di doon ci liñ jort mm-hmm. am na nit koo xamante ne nii bu ca joxee lam ca war a joxe ci kàttanam xelam ak tawfeex gu yàlla defal mën naa yomb ci moom lool nga xool ko ci sëriñ Mbàkke bi su mu a mm-hmm. xam-xam xam-xam yi a jafe la mm-hmm. ba ci ay jamonoom sax ñu bari doon ko daw waaye moom daal ci fent def ci lu am solo dañ ci ñëw ci biir lu mel ne xam-xamu fëlëk kon xam-xam daal benn jafewul waaye mi ngi aju ci nit ki rek lu waay yombuloo rek mu yomb léegi ñu indil lu suñ Mbàkke bu sa portaleel nu ko ci wàllu xam-xam ci lim ci bind man la ci doon doxee lan mooy xam-xam li tax ñu tuddee dëgg-dëgg suñ Mbàkke nag baaxul waaw loolu moom waaxewul xaal mooy réalité bi ñu dund ko wane ndax koo xamante li ngay wax ci moom lépp du looy inventé waaye ay téere yu bind nga koy gis ak ay jaar-jaaram ndax boo xooloon Serigne Mbàkke bu sa ak rolam ci li nga bëgg laaj mooy rolam ci ci saare xam-xam ak xam-xam li ko amee dafa mel ni mënees naa wax ni première récolte bu mu récolté bu mu génne ci xam-xam mooy li ñuy wax ilmul euh, rasmil mushaf mooy li mu a defar ci xam-xam bind ko ci borom xam-xam yi ak gëstu ko di wax nañ ni mooy alxuraanul karim ni ñu koy bindee ak nañ koy daptoo te loolu damay delloo ci lu sori mooy euh, yëg-yëg bu mu amoon ndax booba jamono ji dafa wuuteeg léegi ndax booba xëy na jumtukaay yi bëriwut ak yu mel noonu ca alxuraanul karim mooy lépp te gis na ko fi Sëriñ Tuubaa tegoon kansil kitaabul hadis wala adab tax ci jamono yooyu ci jumtukaay yu néew yum yoroon mu fexe ba taalif ab téere boo xam ni fànnu rasmil mushaf la ko tuddee woon mooy nan la ñuy bindee alxuraanul karim ak nan lañ koy saytoo ndax bind alxuraan dafa wuuteeg bind araab yi nii kese kese ba léegi boo seetlu am na ay baati alxuraan yoo xam ne du sañoo koo bindee ni ngay bindee arab sëñ Mbàkke sa nag ci jiitu gum jiitu jamonoom bokk na ci li mu njëkk def mooy ci xam-xamu alxuraanul karim kon loolu eh, taalif na ca. waaye liy wane xam-xamam dëgg dëgg dëgg euh, suñu seex ba de seex naa Seexul Xadim radiyallahu anhu dafa jëloon sañu Mbàkke ginnaaw bi nga xam ne dénk na ko Touba di ko jox ni ko nekkal koo xam ne yaay waaye li gën a wér mooy nangam ak nangam nga xam ne kon mujtahid la kon mën a am na darajatul ijtihaad mooy mën naa génne ay masala yoo xamante ne nii moom gis-gisam da cay dëgër mu nellu mu nekku dellukaay loolu ci xam-xamu fiq rawatina ci al fiqhul maliki bi nga xam ne mooy cosaan ci Sénégal mu dellu ci li ma waxoon léegi rek day delloo mbir mi ci li nga xam ne moom méngoog fi ñu nekk mu taalif ci xam-xamu wàllu xadiis boo xoolee ay téeréem hadis yi di ci nekk ci hadis fan yi rek daan naa ko daan naa ci liggéey waaye li ma seetlu mooy maanaam um, xam gi mu xam riwaayaat yi ak xam-xamu hadis ni mu tumuraanke woon ci jamono yooyu yéeme na lool lool nga dellu ci nag li ma gën a yem mooy alluxal arabiya mooy langu arab moom maanaam dafa mel ni eh, maanaam Serigne Touba da koo jox rek ndax li nga xamante ne nii nusian li nuru lisaan wal kitaab bi Serigne Touba doon wax Serigne Mbacke xëy na mulaasama gi mulaasama woon Serigne Touba ndax ku ne xam na loolu xëy na du bi waaye kon ñu wax ci ci teel a gi mu teel a moom dafa dafa dafa dafa roy ci moom lu bëree bëri bokk na ci mooy ni mu itqaane langue arab Euh, booy xool euh, ci xasida gu rafet googu mu doon tàgg Sëriñ Tuubaa wal xawsu wal miqyaasu rabba qulubana wa ajsamana fal kullu saafin wa naahim boo déggul arab sax boo déggee bayit bi rek dangay xam ni lii li wax ju rafet la muy ay bayit ak xasaa it bokk na ci lim da nga ko défendre ca ba muy koy wuyu ji ndar ak yu mel noonu qulil amir wala turibka haybatuhu innal mahabata xidnul adli wa sadadi muy mooy muy waykat la woon ca shaa'ir kenn du ko doon ko xam ne déggoo arab muy kon boroom xam-xam boo xamante ne nii lay nekk ci wàllu xam-xam ci balaax ak yu mel noonu waaye ci wàllu xam-xam lim ci liggéey dafa yëbu doon ci pratique ci wax nii kese mm-hmm. waaye da ko doon ci pratique ndax lim njëkk a def mooy sos ay maas bu ma doon limal li génn ci école bi xay na ñëw ci laaj yi euh, maanaam daanaka man nga ni Touba ak li ko wër ak yoonu murit maanaam képp ku ñu fi tudd ci xam-xam rek daanaka soo génnewu ci Serigne Mbacke génn nga ci koo xamante ni ci Serigne Mbacke la jaar ndax ku mel ni Serigne Abibou Mbacke ku mel ni ki nga xamante ne ni mooy Serigne Assane Bousso ku mel ni ki nga xamante ni mooy sa sa euh, sëñ euh, ñu bëree bëri ñoo xamante ne nii taawam ba di sëñ Mouhamadou Bousso al Khalifatul Awal ak Serigne Makhtar Bousso ak ñeneen ñoo xamante ne nii e, jaar nañ ci ay loxoom pour mu jàngal leen xam-xam naa ñëw ci kanam tuuti waaye boo di xoolool ci ilmul falak xam-xamu falak wax dëgg yàlla da cee taalif spécial boo xool da nga naan loolu mooy taxasusam xëy leen ko wan ci kanam mooy leetar boobu mooy éco maanaam e, montre boobu nga xam ne da koo taalif muy lu jafe-jafe mu nekk ci diirub fanweer at ak nangam yoo xamante ne nii di xool la ak jant bi kañ lay soo ak kañ lay fenk ngir li ñuy wax xuwatul euh, euh, himmati mooy am am pasteef loolu ko ñu war cee roy lu bëree bëri ci jamono ji ndax baax bu fekkoon nit ku gaaw a découragé la daal di bàyyi ndax waxoon nañu bis bu ko ci raw rek koy mën a dabbuwaat muy solo nag. ndax li ñuy wax ataw xiitul maxal yi daan naa ko wax mooy temps local bi nga xamante ne nii ñëpp ko aajowoo moom ci ay jamonoom fex na ba fenkal ko waa Sénégal nga xam tey bu fekkoon xëy na njaboot gi ñu ngi ciy liggéey waaye liggéey bi moo gaawul ndax day lu jafe. waaye li li mu fental waa Sénégal lu jafe-jafe la mooy fexe na bañ xam seen euh, temps bopp ñoom nga xamante ne nii du taw xeetu gréret bi nga xamante ni moo euh, tënku ci loo xam ne réew yi nga xamante ne yeen réew la ñu xaw a avancé ci xam-xam yëpp dafa wutal nañ ko seen bopp suñu mbàkke de ci waxtu yi yi xam ne moo pratiqué méngoog Sénégal ak gox yi wër Sénégal ndax nekkul ni dafa sukkandiku ci ña xaw a jege Sénégal waaye dafa fexe ba mu méngoog Sénégal ba pare nekk loo xamante nag validation bi maanaam def mën a continuer ndax am na ay mètres wala ay kilomètres yoo xam ne soo ko doxee da nga dolli wala nga wàññi muy muy efficacité goo xam ne dafa nekkoon ci ab liggéeyam ak taqribaat yi mu ciy def naan bu dul nangam di nangam junj nga fi nii maanaam maktabaam nit ci boppam moo nekk loo xam ne neexut a sama kaas gi donc tey jii boo bëggoon a wax ne ñaar téere laa bind mën koo bañ a xam waaye maanaam ay kitaabatam ak fànn yi nga xam ne doon na ci waxtaane daal ëpp na ñaar fukki fànn mooy ci ci fiq ci xam-xamu miraas ci riyaadiyaat ci yeneen yeneen yeen yoo xam ne lu ëpp ñaar fukki fànn yoo xamante ne nii ñi ko tarjumaal ak ñi gëstu ci wàllam wax na ni daana ci waxtaane loolu nag xam-xam la mën a doon waaye waaye daal fànn yi nga xam ne moo gën a siiw fii ci fànn yi boo ci dem rek fekk nga bind ci am marjax boo xamante nii dellukaay la ndax xam-xamu euh, fiq am na ci ay ay bi ba yoo xam ne moo gën a mu tontu ci la ko bind bu dee lu yi bënd ay ahadis yoo xam ne koo boole ak yeneen ak yeneen ak i ak i intaajaat ak yoo xamante ni muxtalifa la mutafarriq fi l fiqh wa fi nahwi wa fi l hadis na ci ay masaayil yu wuute moom yu bëree bëree yoo xamante ne nii mu ne su ko di nangam ak nangam la waaye ku ne xam na ni bari bari goo xamante nii li ko wane mooy madrasatu Guédé bi nga xamante ni mooy école am bépp fànn goo xamante ne nii ci fiqh la wala tawhid wala hadis ñu ngi ko fay jàngale ca cosaan li jéegool li fenn fi sëñ Mbàkke Buso léegi sëñ Mbàkke ay ixtilaaf yan yan kii la ci daan am ixtilaaf borom xam-xam loolu tamit euh, dafa mel ni euh, dafay wane jikkoom moom sëñ Mbàkke mooy jikkooy borom xam-xam la yor foofu ndax dina tudd masala xilaafiya bi waaye ça dépend ci ki muy waxal bu dee wax ak koo xam ne ci amaamu naas la bokk comme euh, pédagogie bi yonante bi yoon lay def dañoo tuddal la masala bi nga xam ni moom moom moo gën a dëgër ci li mazhab bi wax waaw bu dee borom xam-xam lay waxal nag dina ko tuddal masala boo xam ne dañ cee wuute masala bu dee bind nii nga xam dafay bind ngir xam-xam nii rek dina dina dina wax yu bëree bëri ay dellutukaay yoo xam da ngay mujj sax yow da ngay xaw a jaaxle comme na wax léegi mooy ni muy tuddee delluwaay yi ak ni muy kiyee day wane nii maanaam dafa da ko ñor lool maanaam du nëbbu masala bi li ci nekk ci ak wuute da koy leeral bu mu leer naññ bu dee borom xam-xam lay waxal waaye bu dee koo xam ne nit koo xam ne dafa bëgg bëgg a jëw jariñu da koy wax li ko jariñ ci saasa rek wala mu wax ko benn ibaara bu gàtt boo xamante su tënkoo rek maanaam daana wax ni jaahil de buur la xam nga fi ne wax jooju dafa gàtt waaye dafa bëri lu mu tënk wane wut nii rek dafa ŋàññi jaahil waaye li bëgg wax mooy nit sax lu mu def te réere ko sax maanaam kenn du ko kenn du ko jàppee mel noonu kon daal maanaam méthode borom xam-xam la yoroon ci côté boobu mooy bu fekkee daa aaje yaatal da yaatal waaye bu aajee tënk day lay tënkal rek. Hmm. suñu ñu ci jotalu jotaay bi. Hmm. ginnaaw bu suñu mbàkkee liggéeyee lii ci wàllu xam-xam. Hmm. la xam-xam développé ci ci gédé fi mu toll ci wàllu taxawaay ak lan lañ ci liggéey xam-xam dafa gën a ñor gën a bari. ndax xam-xam bi na wala. waaw loolu kay moom eh, al alwaaqi yashhadu ala dalik mooy eh, li am dina ko seede ndax fii ci buntu kër yi nga xam ne mooy buntu kër Sëriñ Mbàkke Buso amul genn kër goo fay dugg rek gudul ne téere boo fa joxoon ko ñu jàngal la ko kon buñ mënoon a li nga xam ne moom la Sëriñ Mbàkke bàyyi woon ci trois soo xam-xam maanaam dañoo wax ne dañoo mën a wax ni dafa gën a yokk ndax mbooleem njaboot gi foofu dugg comme ni ma ko wax nii léegi gone yi ak sa déeg sa yi wax dëgg yàlla ay kàngam ñoo ngi ci ñoo xamante ni nii euh, lépp loo xamante ni wàllu xam-xam la ci diina ji wala fiq wala quran ak mel noonu ñoo ngi ko maîtriser maîtriser gu am solo bokk na ci kër yi nga xam ni moo wër jumaa ji nii foofu ci dem rek wax dëgg yàlla daaree xam-xam la daaree alxuraan la daaree hadis la ak jàngat waaye bokk na ci njariñ li mooy jamono ji ni mu wutee ni mu sensé léegi eh, technologie bu bees beeg yu mel noonu dafa gën a dafa gën a jàjji nit ñi ci xam-xam rawatina njaboot bi moo tax eh, ñu ngi eh, rabita bi ak daayira yi ñu ngi ci def ay gëstu yu am solo ci fexe ba li nga xam ne moom la fi sëñ bàyyi woon surtout ci ilmul falak boobu ma wax nii léegi mu gën a méngoog jamono ji méngoog boo xamante ni nii da ko mën a méngoleeg li ma li météo di wax ak yu mel noonu ndax li ci gën a yéeme mooy loolu xam ne jotaay bi ko laajut mooy masala yi mu doon tudd ak li muy wax dafay méngoo tëb xan bi tëb maanaam li météo wax ak li nga xam moom la xam-xam bu bees wax kon daal liggéey yu am solo la ci njaboot gi def bokk na ci euh, li nga xam ne moo jëmoon ci wàllu dog yeeg yu mel noonu Euh, waa kër sëriñ Sidi sëñ Cheikhouna Bousso wax dëgg yàlla def na ci ay liggéey yu am solo waa kër waa kër sëriñ Moustapha Bousso ak ñeneen ak ñeneen ak ñun ñi wax dëgg yàlla bokk nañ ci ñi nga xamante ne nii daal madrasatu ahlu Guédé boobu boo bëggee sàkku xam-xam moom wax dëgg yàlla boo ñëwee ci Guédé doo réer te loolu nag junjub sëriñ Touba la woon ndax moo ko waxoon mu ñëw fii ci Guédé comme ni ko sëriñ Jili waxee léegi ngir euh, wuutu fi njaboot gi nekk kabirul an ila wa aminu mooy njiitu famille bi te mooy euh, secrétaire bi nga xamante ni moo ko doy ci lépp ilaa ma di taxastuhu ka adudi sëñ Tuubaa moo ko wax dama jàppe woon sama loxo ni jor jërëjëf mbokk yi nga xam ne yéen a ngi doon topp ci seen jataay bi di Madinatu Ilmi tey ñu ñëwoon fii ci dëkk bi nga xam ne moo di dëkku xam-xam di dëkk Alxaaji bu so ñu dalaloon njaboot gi nga xam ne ñoom ñooy yëngu ci wàllu xam-xam ak dëkk bi tamit yi nga xam ne moom lañ fi nar a réalisé te Serigne Omar Bousso di ko taxawee ñu ngi koy ñaanal mu yàgg fi lool te li mu bëgg a liggéeyal Serigne lépp mu defe ko bëgg koo liggéeyal Serigne Mbacké Bousso kon daal dëkk bi mbokk yi tey ñu ngi fi ñëwoon ci ñaari anam yooyu mooy xam lan mooy dëkk bi ak mébét yi waaye dikkoon nañ fi ci wàllu xam-xam yi tamit di ngeen li Serigne Serigne Bousso wax euh, te mu doon mébét yoo xamante ni njaboot gi ñu ngi koy mébét ak bëgg koo dundal bëgg a dab ngërëmal sëñ Mbacké Bousso ak itamit amaana bi sëñ Mbàkke Bousso sëriñ Touba amoon ci moom muy wàllu dénk ko wàllu xam-xam ak wóolute googu ñu dundalaat ko fi ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatulah bay baa nga faatu woon ca xaama bay sasi seex bamba dem ca géej ga xaama jay sasi rahimahullahu bi jaayil salaala yi rabbuna kamastafa ñu teg ci fan kër ga daldi jommi téere yépp lakk mbër ma jommi ca yooya fan la ma xëy ba jaaxle banaa ko ñàkk bàmba dootoo baaxle duniyaa su doon këru saxoo ne dàkk kon Mustapha Makka këram lay dëkk duniyaa su doon këru saxoo di yaale xëyrul waraa waa Makka duñ ko jaale ca moomaat la tuxu dem ci waawoon fekki sëriif mu laay ni adduna bon sëriif mu def ko loxoom ci lépp mbokk yi jërëjëf ñu nekk fii ci Guédé di dëkk boo xamante ni 1918 ci lan sanc dëkk bi ñu toog nag ak xalifa bi nga xam ne moo di xalifa alhaaji Mbàkke Buso ñu jox nag sëriñ ji li mu tëjal nu jataay bi ci Guédé fi ñu toll nag ak avancement bi nga xam ne bëgg nañ mu am fi ak yi nga xam ne mooy liggéeyal sëriñ Mbàkke moom la mën a joxe ni sëriñ bi waxee rek mbiram tolloo na ak jamonoom euh, euh, fas na ko yéenee gunge ci anam yëpp di ñaan moom itam nag Euh, mu jàppale ko ci ci anam yi nga xam ne it euh, dafa nekk ci loxoom te Serigne moom ko lu ci doon cërub Serigne Mbacké rek euh, lu nga ko ci mën a jàppale mu jàppale ko ci te loola am na sax nag ay firnde yu mag a mag ndax Cheikh Mahamadoul Bachir Mbacké mii moom Cheikh Abdoul Qadir mi nga xam ne yu ci bari ci loxoom lañ ko teg am na liggéey bu am solo boo xam ne tàmbali nañu ko fi muy ab tali boo xam ne indi na ko ba ci kër Serigne buntu buntu kër Serigne Mbacké gi indi ko ba ci jumaa ji Euh, euh, fii mu ne ñu ci liggéey bi moo nekk noonu boo xam ne incha allah euh, ñu leen koy wan sëriñ bi mi ngi sant Cheikh Mamadou bashir bu baax di xam ne da ko génnut ci fenn génn ko ci fenn waaye xam na loola te jàpp ko bu baax a baax li nga xam ne nag moo ci soppiku ci barab bi nga xam ne fi lañ bëggoon télé bi jaar fi te ñu wëlbati ko loola nag sëñ bi mi ngi ci insisté wax ne fi mu jaar. moom ci boppam moo moo ko bëggee noonu ndax jaarale ko ci mbedd mee nga xam ne moo moo jaar fa buntu këram day gis ne boppam lay defal waaye nag gannaaw suñ mbàkkee ko tax a jóg nañ ko indil ba ci buntu jumaa ji buntu jumaa ji nag kon ñu jëlee ko ci corniche bi mu jaar ci buntu jumaa ji dem ba sofi ca tëli boobee nga xam ne moo bàyyi ko ci kër Cheikh Bass loolu kon bëggu sëriñ bii la moom moo ko bëggal boppam waxtaane na ko ay bokkam yépp leneen liñ ci dolli it mooy santaat président de la république ci cër boobu nga xam ne ñu ngi koy defal gede euh, tam bàyyi koo fa moom donte euh, lépp lu jëm ci Touba ci loxol xalifa lañ koy teg. leneen lañ cay toppaat nag mooy njabootuk sëñ bi ku mel ne sëñ Fallou Bousso mi ñu ngi koy sant di ko gërëm bu baax ndax mag la lii ñuy def lépp moo ñu ko gën a man moo ñu ko gën a xam waaye nag yaatal te xam ne liggéeyal baayam kenn ku nekk am na ca wàll. Euh, kon. Mm, saatu saa wat boppam ñu ngi koy sant bu baax a baax di ko ñaa ko di ko di ko ñaanal moom itam te di ko dolli it nag mu yokk góor góorlu te xam ne euh, lam doon liggéeyee yàgg na caa gis boppam ndax sama boroom jox na ko ci teraanga ju nekk waaye nag li gën a yay tey nag mooy liggéeyal Serigne tubaa suñ mbàkk dong rek la am ku ma ko jàppal ma jàpp la ak koo mën a doon ko jàpp rek jàpp naa la te ku ko jàpp ku ne. su ma la jàppalee da xam ne jàppale naa yar na jox ko yor na jox ko jur na mu jox ko fab na doomam jox ko sëriñ bi wàccoo nag ku muy rafaatal bii nga baax lar bu mu jàpp baaxal mbokk yi jërë ngeen gis ngeen nu fii leen ñëwoon tey mu di Guédé Bousso di dëkku alxaaji Mbàkke Bousso bi nu dikkee nag nañ fi nga xam ne moo di jumaay alxaaji Mbàkke Bousso ji nga xam ne moom moo nekk ci dëkk bi gis ngeen liggéey yi nga xam ne moom moo fa nekk dugg nañ tamit ci këram gi nga xam ne moo di kër alxaaji Mbàkke Bousso te nu fekk fi xalifa bi di Serigne Omar Bousso mi nga xam ne mooy xalifaam yëkkati na fi kàddu yoo xamante ni moo ki nga xam ne moom la jox kàddoom muy Serigne Jili Bousso bi nu noppee tamit waxtaan nañ ci wàllu xam-xam ak alxaaji Mbàkke Bousso ku tudd xam-xam ku tudd xam-xam tudd alxaaji bu Bousso waxtaan nañ ci ak Serigne Serigne Bousso gis ngeen ne tamit dugg nañ ci barabu alxaaji Mbacke Bousso siyaare foofu nga xam ne moo di barab bi dem na tamit montre bi nga xam ne Serigne Mbacke Bousso daf ko fee réglé ngir ñu ci xam waxtu julli yi ak waxtu yi nga xam ne moo di waxtu yi nga xam ne moom la ñuy dog yooyu yëpp dem nañ te gis ngeen sànc yi nga xam ne tamit am na fii ci Gédé Bousso ñu ko fi amal waaye lépp nag ci teewaayu ki nga xam ne moo di Serigne Omar Bousso mi nga xam ne moo di xalifaam ñuy sant mbokk yi nga xam ne ñoo nu doon seetaan ak mbokk yi nga xam ne ñoo nu doon déglu ñu àndoon ki nga xam ne moo di mu nekk ci caméraman bi bi nga xam ne ne moo di montage bi mu di Cheikh Gueye ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen jox yeneen i daje wasalaamaaleykum wa rahmatullah madinatu ilmin murtajan minnatun lana jariun munjin min sunubin wa min sulmi ma la ani bi nabi kulla fasidin wa sirtu bi abdan xadiman bila xammi min allahi rabbil alamin أبقي الصلاة بتسليم المصطفى الموجل اليمين